asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki téléspectateur Equivox TV yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar xam ne su ma leen nuyoo rek xam ne làmb tax ma di leen nuyu ndax yéen maa ngi làmb 100 pour cent la du mën a ñàkk li ko waral nag mooy Fallou Ndiaye borom Ndiaye production moom moo ñëwati. ndax la 27 ñëwoon na teg 4 millions ñu ne déet ne waay mu ñëw dàbbaliwaat ko tegaat yeneen 4 millions kañ la ko teg samedi bii nu jëm di la 10 drapeau Bawal sans frontière fii ma taxaw nag. ku ko gis xam ne mooy biir marché HLM fii ñuy dund lamb rek a fi ne am na ay mbër am na ay amateur maanaam ñi fi ne moom lamb kese kese la ñuy dund moo tax nag mu ñëw fi tey fas yéene waxtaan ak ñoom pour le 10 boobu la ca neex nag mooy xam nga tamit marché HLM daa bëri ay doomu séréer te bu ñuy sargal yaxe jooju Yékini ci bés boobu champion d'Afrique ki def huit ans ci roi des arènes kenn daanu ko ba pare mu def quinze ans de règne yàgg maar faw mu ñëw waxtaan ak gars yi dékk leen micro wax ak ñoom ci le muy nuyu waa marché Salem yëpp waaye rawatina Omar Tawa ci biir marché bi ak Moussa waaye àjjuma ngi nii ama kii moom ku xam làmb xam ko mais ku xam Omar kan Reug Reug xam ko mais dama koy féliciter ba pare ci ndam bi Reug Reug am bi fa nga xam ne moom mooy ca Singapour àjjuma maa ngi lay ziar. Babacar maa ngi lay delloo ziar. ci loone sant yàlla rek. félicitations ci sa ndamul démb li ndamu Sénégal sax laay wax. waaw merci beaucoup merci beaucoup ndamu Sénégal la ndax doomu moo demoon wuti. dëgg la Sénégal yëpp a ko ñaanal. ñaan bi dal kon suñuy remercier du ñu remercier ñun kese Sénégal yëpp la ñuy remercier ñeen seen ñaan yëg si na sant nañ leen bëgg nañ leen bu baax ndax euh, doom ji seen doom la du suñu rak du suñu leen ñun ñëpp Sénégal la drapeau Sénégal la yóbbu woon waaw. am na solo am na solo waaw. mais tey samedi le 10 ku ne xam na ne Fallou Ndiaye daa teg 4 millions def drapeau Baol sans frontière mais li ciy doy waar mooy day sargal Yaxya Diop Yékini te Yékini di doomu séeréer def lu leen ci lit simple def ko ci lit avec frappe défendre couleur defe naa ba muy tas fédération bi mhm. loolu defe naa neexoon na lool loo ciy wax la dis boobu. Euh, Fallou Ndiaye ñu koy sant di ko gërëm ndax vraiment day jàppale làmb di ñuy jàppale ñun ñi nga xam ne ay amateuru lam lañ ndax namoon nañ ko mhm. def na ko fay passé mu neex mhm. mu koy doli samedi bii ñëw yal na lim amoon ci bee passé mu am lu ko raw encore euh, suñu grand bi nga xam ne de ko ci sargal loolu lu ñu neex la lu ñu neex la ku xam Yékini xam Omar Kane xam ma ne soo ma laajee wax jooju dem may neex pour ma tontu ci dama ciy sawar a tontu ndax suñu grand la suñu lépp la ku ñu bëgg la lu ñu digal ñu def lu ñu tere ñu ba moom Yékini ndax luñ moom moom fu mu toll nii suñ koy sargal moom man moom xaw ma keneen waaye ku ma fa dégg ne ma mos. kon daal samedi yaa ngi arrêté na ak ñi mag ñii yëpp ngay gis nii naa leen yóbbu ngir Yékini naa leen yóbbu ngir Yékini vraiment sant naa la gërëm naa la aussi di ci doli di ñaanal sama rak sama xarit Omar kan ndax dem nañ dépassé mbër dem nañ ba dépassé ay wàllu supporter kon maa ngi koy ñaanal guddu fan ak wér li mu nekk moo xam li mu ci bëgg yal na ko yàlla defal ici Sénégal yal na ko yàlla dimbale ba mu yor couronne bi niñ ko nit ñi yoree. am na solo loolu mais léegi yow fogole séeréer xam na faw nga def appel parce que yow dafaw nga làkk séeréer. yow fogole séeréer mi xëy gidma nuun sant a nuun to yaakaara nuun euh, no ke andoona yee kaam farte no xena layel Reug Reug Omar Kane xu andoona seereer rek to gonum ak fu mu waagoona ref o ñaananaam o ten a roog ku ta bugna no njom roog a fi'an no ten maxey xeɗan seereer fop to aussi itam gidma nuun no combat ke i njeg'ina yeng ole xaye Sénégal a ñaanana niig o a jegay ndam o ɓiy Sénégal oxa ndam ne ndam Sénégal gidma fop sant a fop aca merci beaucoup Babacar du a ñàkk ko tamit dem katu làmb bu mag a mag la non kenn du musa Moussa mooy le roi maa ngi lay ziar kilifa gi tur bi. ziar bu wér Aliou la. Aliou waaw. yow it xame naa la ci lambu simple. waaw chaque jour maa ci lambu simple bi indi sama booy rek. na solo samedi fàllu wooteeti drapeau Baol sans frontière mais li ci doy waar day sargal Yékini te yéen ngeen di ay doomu séréer defe naa sargal Yékini boobu ak le le 10 bi 4 millions loo ciy wax yow. loolu Baol gi la loolu bépp géwal képp kuy Baol Baol moom yaa ngi koy préparé bu baax a baax a baax parce que Fallou Ndiaye Baol Baol la ñun booy Baol la ñun Bambey lañ dëkk waaw ñun ba waa Bawol Bawol la kon Bawol la xewle comme Bawol la xewle la ñëppay teew kenn du manqué Bawol ñëppay ñëw ci stade bi feesal ko Fallou Ndiaye yàgg nañoo bégal chaque jour chaque man du ma tardé lamb du lamb farab du lamb simple chaque jour maay stade man amateur laa kenn gënu maa doon amateur kon ñooy amateur yëpp bés bu ñu teew foofu waaw samedi 4 millions la teg number yi ñëw amateur yi ñëw ñu sansé lu rafet ñëw teewlu seetaan gaay gaay bëri lu neex kilomètre gañ waaw damay bëre waaw yow mii da est-ce que yaa ngi bindu di bëre. man non maa ngi bëre mais bëreegu ma Dakar nag. lu tax. non maa ragal mbëri wala. non du loolu dama amagul licence quoi. non non. ñaataat nga am ba mënoo am licence. man vingt ans rek. vingt ans nga am vingt ans da ngay am licence booy mi da ngaa ragal de boobu. non du question ragal sax su ma paree rek damay ñëw bu neexee yàlla. Ah, waaw mais samedi yaa ngi koy waajal le 10 sargal Yékini ak Fallou Ndiaye. maa ngi koy waajal moom vraiment incha allah bu neexee yàlla. noo damay ñëw indi sama benn gara Assane. waaw waaw incha allah waaw. fii ma taxaw nii rek maanaam man nga fay def lu la neex ci làmb ndax ñi ñëpp làmb la ñuy dund maa ngi lay bëgg kilifa gi. seer nañu baax tur bi Pape Sène Pape Sène waaw bu asalem naka yi tey yéen a si jàmm baax ñu ngi rafetlu carrément seen liggéey nga xam ne ñun amateur lamb lañu te lamb rek la ñuy dund lamb nekk moom dañ ko fay weer yow moom bu fekkee ne yaa ngi ci affaire moom xame nga ñu ci bu baax xame naa la kay bu baax bi bu baax a baax sargal Yékini bi ñu ngi siy bëgg parce que Yékini moom képp kuy séeré Yékini sa mbër la parce que Yékini def na ci lamb loo xam ne nekkatul lu ñuy xanaa lamb moo tër rek mais moom moom li mu def ci lamb moom képp kuy roy euh, lamb ku ne ni moo tax ñuy wax waaw parce que 15 ans de roi des arènes loolu moom wax dëgg yàlla macha allah loolu moom amatul lenn ñu ci wax moom lu ñu natable macha allah di kontaan ci Fallou Ndiaye itam li mu def nii parce que lamb moom namm nañ ko bu baax euh, te lamb gëjoon dafa géej boo xam ne kenn foogotoon lamb na demee nii kon buy teg ay samedi ak ay dimanche moom duñu def lu di ko ñaanal suñu borom defal ko ndam lépp lépp lu mu ci séntu ci lu baax suñu borom defal ko ko kontaan nañu baax a baax. boo koy paap tam suñu lokkaat sama mbër sama rakk. Assane Sène waaw jël ko yow xam nga ko. mu jël mu bi. Ah. amiin waaw amiin. Ah, nga koy ñaan loolu laa ko ñaan waaw. ndax ndax xale ba uh, Kaaw Gourdin dina ko nangu Kaaw Gourdin temps yi sonal na dina ko nangu dina ko nangu Assane xam na ko bu baax. neex ta daan Assane xam na ko. Ah. xamante nañu baax. am na solo mbokk maa ngi lay bëgg. ma lay bëgg. tur bi man. Ablaye. waaw loolu itam da ngay dund làmb daal ci guy gi dee ko ah, da nga daan bëre. Ah, waaw da waa daan xam nga rek làmb yi xam nga mooy loolu. Ah, non non méttiwul sax dañ nekk ci yeneen business léegi rek affaire bi moom booy weer ba gis bi roq boo xamante ne moo moo tane bi nga nekkoon nga nga jàpp ci rek xam nga mais ku ne xam nañu fu ne tax nañ fa ngam incha allah kon la carte yaa ngi koy waajal ak euh, ak Fallou Ndiaye le 10 du mois le 10. booy sam booy yi nga xam ne yoon nekk asalam kenn ku ne daal nga am ci sa wërsëg waaw ñu jël lees bi andi ko fii poids poids lourd bi kala kala mayer gagné waaw parce que aw ma ci mbër non non bi daal nga am lees bi daal am naa ci mbër parce que samay rak ñu ngi ciy dem di prouver di dem ay demi finale quart de finale kooku dana yaxee li mu def kenn defu ko waaye kii yàgg maar defe naa ne li tax moom moom defe naa ne xàmme nga ko xàmme nga kii kii mooy Moussa doomu nday doomu nday Samba Kara non yàgg maar ji yàgg maar ji daa neex yàgg maar gi boo boo rek boo ne yàgg ci biir rek man sama xol day sedd billahi parce yàgg maar ay wane affaire yi dégg ko keroog mbay ak lum le yàgg maar di jël sama pochette bi di ko wane sama xaalis <laughs> ci loolu loolu mënu ma ci sant yàlla ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi di gërëm suñu ñaari waajur ñoo ngi gërëm kulu séeréer di di la sant di la gërëm ndax Babacar yow da nga di nit ku baax nit koo xam ne maanaam dafa woyof ndax yow boo defee déplacement ñëw a tey seet si les jeunes amateurs fii loolu dafa rafet mais dañuy sant di gërëm bu baax a baax a baax a baax di teewlu say laaj. Euh, Fallou Ndiaye laaj bi lenn la mooy le 10 drapeau Baol sans frontière lit simple quatre millions moom moo nga ma koy tëgg mbaya nga koy woy comme d'habitude waaye li ci dooy waarate tamit mooy sargal Yaxya Jóob Yékini loolu la def te yow defe naa billet làmb lu mu seer di nga ko jënd rawatina làmb simple loolu moom Sénégal xam nañ ko ci yow. waaw loolu moom dëgg la moom ndax ñun ay amateur lañ ñun duñu ay supporters ñun làmb fu ñu nekk fu mu nekk dañ fay dem seetaani mais Fallou njaay bu defee loolu dafa delloo mbatte ndaal la ndax war ne bay bawol bawol bu tëgee tudde ko bawol sa frontière loolu neex na ba pare mais nag man damay kontaan trop. ci Fallou njaay ci li mu def noonu ndax jon jon me nekk ci leen bada jon woon na ma léegi wax ma ne bawol suñ leen tuddee bés yow foofu ñu woola ci ma ne ko yow loo nekk rek man maa nga ca ndax yow da di sama grand boo xam ne ba nga ma jàppee ba tey bàyyi woo mais Fallou njaay bu jëlee lamb itam di sargal Yaxya Joob ni def na lu rafet ndax Yaxya Joob ni dafa def lu rëy ci làmb kon ku mel noonu boo ko sargal ci làmb daa ni monde lutte nga sargal macha allah kon nag képp koo xam ne bool-bool nga rek da nga war a pare le 10 5 heures pile bool-bool yëpp fees stade bi ba Fallou Ndiaye gis ci boppam ndax bool-bool bu wootee bool-bool war ta des waa loolu mooy yoon man noonu laa ko gisee. fogole séréer Moussa. iyo fogole séréer mi simna nuun e eh, gidma nuun e eh, to yakara nuun e eh, leya nuun ne koy Fallou Ndiaye ka and fo euh, Bawol Bawol sans frontière bés taref samedi gon képp ku andoona yee seereer o refo rek ñoo waa njom no seereer ñoo waa cosaan seereer samdi 5 heures soɓong njom na fop a teewo i mbi'anoos play njebal to drapeau le ngatiido waaw liggéeyu Equivox noo ko gisee Equivox ci làmb macha allah mooy lima la wax ñooñu dañoo ñëw gën a yaatal làmb tey da ngay da nga dul da ngay toog sa kër sax di seetaan boo ko la dara mais Babacar booy reporté rek man jarul may demee saat man boo dee yàgg maa rek doyal naa. billaay wallaay taalaay loolu damay kontaan loo billaay wallaay taalaay man damay toog di seetaan may bég ndax ni ni ni lamb mel léegi dafa développé ba yow boo toogee sa kër sax mën nga ñàkk a dem lamb sax di seetaan lamb billaay kontaan nañ trop trop trop trop ni affaire bi mel ci lamb ci instant yi sites yi dañoo bëri mais daf loolu day day yokk rek ndax maanaam. bii fi bi mu nekkee benn tele benn rajo boobu lii xew ci réew na koo xam mais tey lu xew ci réew mi tey nga yëg ko xam ko mën nga toog sa néeg sax doo dem lam ngay seetaan lam loolu dafa neex kon macha allah ñu leen di ñaanal mu dem a dem ba doon télé bu mag wax dëgg neex ndax yow man daal sama yéene ci yow mënu ma la koo wax woor na yàlla li ma la yéene mënu ma ko toog di ko wax. ki dem da dagal nga ma lu rafet. yow sama xarit nga. loolu sax moom loolu moom. non danaa ko wax jëm kaw mais moo ne woon géwél amul ku la defal lu baax nga wax. loolu dëgg la mais yow sama nit nga loolu su ma ko ko war a def ndax maanaam ñun ñëpp ñoo bokk bawol saa bu ñu kii rek ñooy bokk oto bi dem gon la lépp rafet. te yàgg maar mi nag bëgg naa mu solo tey de. yàgg maar yàgg maar fa mu solo ndax yàgg ndax yàgg maar moom xam naa ne boo ko nee yàgg maar ci biir rek doy na jaru nga ci yokk leneen. faw mu solo ma ne ko lii mu saala. loolu mënut a ñàkk loolu mënut a ñàkk. Salma Kara loo koy wax sa waay. non sama xarit la. waaw sama waayangu. Ah, kooku sama doomu nijaay la Kara mais kooku nit ku baax la kooku kën gënu ko kooku looy xool ci nit ku baax rek boo ko gisee jàpp ko macha allah kontaan naa ci moom trop trop trop trop trop na yàlla kooku sama nit la mais kontaan naa ci yow yow moom sama xarit nga bégg naa trop ci yow. waaw moom it toog di dundu làmb comme ni ma la te gis nga gars yi yàgg li nga war a wane mooy gis nga ñii dañuy liggéey moo tax yàgg faw nga jël li ma lay wax nii parce que li tax mooy Sénégal. gis nga taabal yi ngay gis nii ak mbaar yi ngay gis nii ay kër lañu yor di fa joxe dépasse di dundal ay nit kon defe naa président bi jiite mi mu monsieur Macky Sall na bàyyi xel ñii milliards yooyu mu génne pour jeunesse bi nee na na ci bàyyi xel ñii ñi mu ko jox na fexe ba ñu jox ko ñii parce que ñii ñooy liggéey de ñii ay liggéey liggéeykat lañu ñii ñaanuñu abbuñu sàccuñu fenuñu dañuy joob ñii joob la ñuy def bu dimanche jotee ñu dagg seen billet dem làmb ja fu mu seere solo ba rafet kon nañ leen bàyyi xel waaye waxuñu tamit nga jël milliards yi jox ko ay nit ñu dugal ko foo xam ne du ñii duñ ko gis ñii ñoo ko war a gis boo bëggee dégg dëgg li may wax am na importance nañ ci bàyyi xel président yow la ñuy waxal gis nga jaaykat yi ne ci marché yi mécanicien yi menuisier bois yi jaaykatu caaf yi ak ñay jaay ngooñ ñooñu bu ñuy dimbali ci ñooñu la ndimbal li war a dem waaye nag waru ñoo jël milliards yooyu nga génne jox ko ay politiciens yu mel ni man sam waay ñu def ko rek séddale bukki ba bii njuur bii sàmba bii ki ndayam dee bii ki ci jëkk jël te teg naa ci sama loxo loolu wóorul loolu nañ ci bàyyi xel mbokk maa ngi lay bëggee. maa ngi lay ziar bu baax a baax. da ngay dund làmb yow. waaw damay dund làmb bu baax a baax. tey la 4 wala la 10 di mooy sax ku ne xam na ne Fallou Ndiaye moo ñëw 4 million bawal sans frontière la wax drapeau bi waaye sarga sarga yaxa jóob yëkki ni ngay dund làmb noo noo noo dunde loolu. waaw loolu mbégte bu baax lañ ciy am boo xoolee làmb dafa am solo ci réew te ñu koy dund même pas bu dul séeréer sax ñëppay dund làmb te et làmb bu amee ah da ngay xool mentalité nit ñi dañuy changer lu bëri ah yu bëri day dañ comprendre nga kon sport dafa baax ñu koy dund waa fallu Ndiaye nag lu mu def moom kontaan nañ ci bu baax parce que kuy liggéey la ku ñu war a jàppale la. ndax ku jële sa ay millions def ko ci ay mbër di xaar lu tuuti yaakaar naa ne yaa ngi jàppale jeunesse bi que loolu lu am solo la lu am solo la kon ñu ngi koy ñaanal incha allah yàlla def bés boobu yéeg si sargal Yékini bi nag dañ ciy kontaan parce que Yaxya itam ku bëgg ku bañ xam nga ne def na lu bëri ci Sénégal ak Afrique kon xam ne le mbër la roi des arènes la woon ñu ngi koy sargal nag ñun ñëpp ñoo koy boole sargandool ko parce que loolu mbégte la pour Sénégal contentement la pour Sénégal ñun ñëpp nag pour soobee yàlla nañ ci teew ci kàttanu yàlla waa ci kàttanu kontaan ci yow waaw bëgg ci yow yooyu itam waaw rafet na jërëjëf comme ni ma ko wax rek ba tey gis nga ki ñu fekkaat fii place am mu toog moom it di jaay tisi macha allah gis nga fii boo fi ñëwee xam naa ne moom daa mel tisi du la jafe ay wax ak na gis naa ko fi tur bi maa ngi lay jaar kilifa gi Baba John Baba John John John John John sore na waaw sore na kay man may setu may sawaali joon non may sawaali joom la du de may sawaali santul joom de non jon la joom la sant jonnul la sant ah baax na may sawaali jon ñuy seetaan dinañ ñu tàqale maa parce que man joom laa sant waaw déedéet may sawaali joom la may sawaali jon la sant santul joom de jonnul ah, la sant waaw jon la sant waaw kon am na solo ba tey mais maa ngi bok bokk sant wi rek xam naa ne enn baak M baa ñu tàqale mais tey di doomu Bawol ne Bawol sans frontière drapeau sargal Yaxya Jóob Yékini yow ngay dund làmb lool loo ci wax ak noo ko gisee. ah loolu lu rafet la Yékini war nañ ko mën a sargale nu nekk def na fi lu ne si àdduna ba pare xam nga man Bawol laa yaroo Ngoy Aliou si la xam ndondol la xam naa fa xam naa la waaw ak yaay xam naa fa bu baax euh, man daal li may wax mooy leen. kenn mënul dara bawul gëpp nañuy jóg jàppale nan la tudd sax Fallou Ndiaye bawul gëpp nañ jóg jàppale Fallou Ndiaye man dama bëgg koo xam ne day liggéey ña liggéey dama bëgg kuy liggéey Fallou Ndiaye xamuma mosuñu ol seen si stade laa am ci moom mais dama bëgg kuy liggéey dégg naa lépp yëpp da maa ngi dem yëpp yëg naa ko maa ngi dem man amateur la xanaa kuy kuy dawal otom fii bu Kaolack di seetaani làmb kay mooy loolu amateur la waaw mais dama bëgg genre Fallou njaay ñoo ñuy dundal mbapat ñun séeréer amuñu lu dul mbapat amuñu lu dul làmb te nag benn message laa bëggoon a lancer ci séeréer yi ngir yàlla dafa am loo xam ne kenn xamewu ko ci séeréer violence te fan yi dafa bari si làmb ji lutte simple dafa bari si lutte simple au début danga doon dem dëkk ba yow sa portable wad ñu for ko de dem yóbbu ko si table bi ñu wax ko si rajo bi nga dem jël sa yëf lu kenn xamul man de wax dëgg ne na mosuma ay dem làmb nii muy toj keroog laa ko gis terrain gaal teg dama rus ndax loo xam ne kenn xamu ko si séeréer man maa mujj dem si gaay yi di toppaat gaay yi di naxanteeg ñoom di defal ko mel ni kooku kii tëgg lam sax daf ma xam mbaanu mooy lool te lépp bëgg mu jàgg ngir yàlla suñu mbokku séeréer yi li ñu kenn xamewul bu ñu ko def sañse ba naayis xeeñ sa lu neex ñëw toog ñëwoo yàlla tëggal la bëreel la dafa neex dafa neex dafa neex dara waaye man dama dund séeréer waaw seeka na xam ñu bari dañ may tooj naan ma ay mbaalu njëre dugg na génn man doxuma si lool yaa ngi dégg séeréer piir la waaw deret ji moom solo dafa neex gis nga làmb dóor ah jamono ñooy ñoom kii ah, Saalum kii Saalum Saalum ah, Balla Gaye ay bàcc raas Balla Gaye mosuma tardé loolu mosuma tardé loolu mosuma tardé lamb dóor mais ba may demee ba ay lamb dóor ñu lay kar nga yor sa oto ñu toj sa pare-brise ak nga ñu lay door ay xeer ak ma ne non man la ma am naa ci dem bu dul simple moom fii ba euh, nuñ koy wax kaarang sama oto maako moom fu ma ko dégg damay dem nit nit rek la mën a doon arbitre ay nit lañ comme nit ku dul juum si àdduna amul ñuy xame noonu bu ma ne dama bokk ak Babacar rek Euh, def na benn faux nga ñëw tiim nit ki di wax rafetul ka foofu waaw katoog foofu am na loo xamante ne wax dëgg neex yàlla ah bu ko sa bu ko mënoon dina arbité ba lii benn foot du ci am waaw nit ku ne ku dul juum sa liggéey amul maa ngi jéglu nag bu fekkee dama wax loo xamante ne naka du noonu maa ngi jéglu li nga wax am na solo waaw maar ci lutte simple bi rek comme ni ma la ko waxee rek kii itam defe naa day dund lutte simple tur bi nan la Cheikh Kamo Cheikh Kamo waaw dëkk fan dëkk Bambey. Bambey nga dëkk. Mhm. ok yow itam defe naa ne yëg nga ne Fallou Ndiaye samedi bi ñu jëm di la diis teg na 4 millions arène nationale bawal sans frontière ba pare sargal Yaxya Jóob Yékini loolu noo ko gisee en tant que amateur simple. waaw loolu moom lu ñuy neex lay doon ndax ñun moom mbapat lañuy ñuy dëgg chaque bañ ne ko sax duñu dara duñ ci raw kon ci defee loolu def na li ko wax def na loo xamante ne ku sargal Yékini maanaam sax sargal nga séeréer yëpp loolu suñu mbégte la si bés bi waaw suñu bés la daal dinañ ko wuyu ji comme ni mu ko bëggee dinañ ko wuyu ji avec comme plaisir pour Yékini mi ñuy sargal ndax ñun ay séeréer lañu bu ñu sargal suñu mbokk tamit ñoo dem war a wuyu ko rek. yow da am mbër. man waaw am naa mbër moom. mooy kan. man moom Balla Gaye mooy sama mbër moom. Ah, waa moom simple bi laa wax. léeg simple bi bébé ama. waaw. Ah. moom lese lay bindu wala lu. lese lay bindu. kon xalaat nga mu ñëw samedi. incha allah kooku waxuma la l'exemple bi sax mais kooku roi des arènes sax koy doon incha allah waaw. fa Balla yegg daal nga bëgg mu yegg. ku ko raw sax mu dugle ko waaw. kontaan ci yow Cheikh. waaw ñoo far yow Babacar ñu ngi lay bu baax nag chaque jour ñu ngi lay seetaan sa liggéey rafet na en même temps daal nga teg sa loxo daal foofu la ñu ngi lay ñaan itam nga eggali ko bu baax seen sig bi tam ñu ngi koy ñaanal bu baax mu dem ba ay télé télé waaw kontaan nañ ci bu baax ndax ñu ngi suivre kii bu baax a baax. merci beaucoup defe naa ne kii tamit manqué nuyu kilifa gi. waaw maa ngi lay delloo nuyu bu baax. delloo tur bi. Euh, man Ndiak Albert laa tudd. Ndiak Albert Diouf. Ndiak Albert Diouf. dëkk fan. Euh, maa ngi dëkk Gandiaye dëkk bu ñuy wax waaw dëkk bu ñuy wax Kédéalan 5 kilomètres de Gandiaye. de Gandiaye. waaw lambi simple kon yow da koy dund. ah la lamb simple franchement mooy sama passion quoi. kon defe naa ne samedi Fallou Ndiaye li mu def di nga ci bëgg 4 millions drapeau Baol sans frontière ba pare sargal Yaxya Diop Yékini. waaw loolu lu rëy la. waaw loolu moom franchement lu rëy la. Euh, drapeau Yaxa Joob Yékini moom 100 pour cent Bawol loolu beneen affaire lay doon. waaw te Fallou Ndiaye moom franchement bu ñu waxante dëgg rek yàgg naa di bëggal waa lutte simple. waaw parce que bépp promoteur boo xamante ne da nga nekk promoteur lutte avec frappe ñëw di tëgg lutte bëri simple rek ñun dañu bëgg ci yow. dañuy kontaan ci yow. ben Fallou Ndiaye nag xamante ñu mais euh, ñu ngi déggante yenn say par WhatsApp quoi mais euh, jotuñoo gisante. mais xam naa ne nit ku baax la quoi mais na fi mu teg tànkam noonu la. mais ñu ngi koy ñaan nag na tegal mbëri 20 millions wala 15 millions. bu de simple waaw fin fin saison na tegal mbëri 15 wala 20 millions. waaw gars yi mën a bëre uh-huh. xaalis mën a am. waaw na def loolu na tegal mbëri 15 wala 20 millions. bëre simple parce que bëre simple dafa métti. bokkul ak bëre dóor bu dee bëre dóor benn combat lay doon. da nga koy bëre benn 10 minutes wala benn 15 minutes mu jeex. bëre simple da ngay commencé 5 heures ah ba 23 heures balaa ba 22 heures. dégg nga mën nga bëri lu mat 10 à 15 combats mm-hmm. nga soog a jël trophée bi xam nga loolu kon loolu yombul. donc loolu gars yi dañ leen war a gars a delloo njukkal gars yi dañoo a teg ay mise yu am doole gars yi mën a bëre mbëri simple mën am xaalis comme mbëri mag yi comme mbëri bëre lutte avec frappe ni ñu amee xaalis mbëri simple aussi am na ay yoo xam ne ay VIP la ñu ci bëre simple waaw ñooñu ay VIP la ñu ñooñu dañu war am xaalis waaw te loolu promoteur ñoo ci mën a jàpp ñoo ci mën a jàpp teg benn mise bu conséquent waaw ay 10 millions ay 15 millions ba 20 millions waaw war na war lu war a am la ci bëre simple waaw mais man am na li may déplorer ci bëre simple mooy ñaari gala yi Euh, gaal gi ak Adrien Senghor non franchement loolu man dama déplorer loolu kaas naa ko sax foo xamante ne ci conférence manga bi parce que loolu moom man neexuma parce que loolu day yàq lamb bokku ci luy dundal lamb lamb avec simple moog bëri parce que ñoo yem te bëri door dañuy wax ne ci benn département bi ñaari lamb ñaari gala waru ci am donc pourquoi pas bëri simple ci benn commune bi loo xam ne motu sax un kilomètre ñaari gala di ci am loolu day yàq lamb parce que Adrien ak gaal gi te dafa jege dafa jege ñii tëgg Grand Yoff parce que loolu la ñuy lor parce que yow da ngay tëgg 500000 euh, Adrien Senghor ku am doole ñëw teg lu ma 3 millions wala 4 millions euh, terrain gaal gi bu ko defee amateur yëpp dañuy ruwee dem le euh, terrain gaal gi. loolu lañ lu war a xoolaat la. loolu moom maa ngi ci interpellé le président Manga. maa ngi ci maa ci interpellé bu baax a baax a baax. am na kontaan ci yow. jërëjëf merci. reportage bi ñu leen doon defal a marché asalem tey ci le 10 ak Fallou Ndiaye sargal Yaxya Diop Yékini drapeau Baol sans frontière teg fa 4 millions léegi nag fii lañ koy tëjee ci biir marché bi ak kan Omar Tawa kii sama xarit la. moo tax faw ma tëjee ci moom waaye walaa may tëj il faut ma laaj ko nu mu gisee le 10 Fallou Ndiaye 4 millions yi mu teg war a sargal Yaxya Joob di nga dund làmb de defe waaw bu baax baax kay di ñaan sama waa jël ko le 4 franc franc waaw ah, yàgg na Émile François kenn du moom ndeysaan léegi a sargal Yékini loo ci gis ak drapeau Baol sans frontière loo ci wax waaw macha allah Fallou moom loolu moom li mu ciy def moom ñun amateur làmb ñu ngi bëgg ci kontaan moom macha allah loolu day suqali simple bi quoi xam waaw chaque jour affaire nekkul dóor bi rek lii da ci baax quoi des fois xam nga mbëri ñu bëree bëri simple di ci gën a gis seen bopp waaw macha allah moom

leen ko jaawale ñëw leen Marsassalem salem fii laajte Omar tawa taalibe Baye Niass Omar bu lay neex sa da ngay joxe numéro bi loolu moom maa la koy may waxal numéro bi ñaata bismillah 77 368 69 69 77 330 68 Omar Tawa Taalibe Baye Niass fii garniture moo ko fi dàqale Marsassalem wala sax bu la neexee nga ne Ndakaaru loolu mooy li am kon gars leen jox dig daje rek le 10 ak Fallou Ndiaye arène nationale 4 millions bawal sans frontière sargal Yaxya Joob Yékini yàgg maar du mën a ñàkk ba beneen yoon